لي سكينة بكل الجنة من داري من bokki jullit yi bokki taalibe yi eh, ñoo ngi fii ci kanamu Serigne Issakha Mbacké ibnu Serigne Bassirou eh, ginnaaw bi ñu bàyyikoo ci xalif général des Mourides Cheikh Mountakha Mbacké ñu koy ñaanal yàgg fi ak wér ba naal yi mu naanal Serigne tubaay yépp mu àggale kook jàmm te ñu fekk ko te ànd kook moom noo ngi fii ci sëriñ bi ci liggéeyu Maam Jaara yi fondation Maam Jaara bi ñu bàyyeekoo ci sëriñ bi ku ne gis na ni fondation bi euh, li muy dox doon ci dox booba ak léegi nit ñi teg nañ ci seen bët mu aju ci wàllu li yor daara ji di ko taxawu ci fànn yépp am nag lu ci dolliku lu am solo loo xamante ni sëñ Isaaxa moo ko ci dolli muy wàllu parenage bi tey jii ñu bàyyi ko ci sëriñ bi euh, mu am euh, beneen fànn yaatal bu am solo boo xamante ne nii euh, wax na ko sëriñ bi muy jébbale parenage boo xamante ni nii day tàmbalee ci at mi ndax naka jekk mi ngi dox waaye at mii nga xamante ne ni moom la ñu dugg tàmbaliwaat beneen fànn ngir leeral ko nag ba mu gën a leer jëm ci daayira Maam Jaara yi jëm ci mboole mbokki taalibe yi fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew loolu ñu moo ñu indiwaat fii ci sëriñ bi ngir ay kàddu yu ko gën a leeral jëm ci ñooñu ak message yu ñu bëgg a jàllale kon ñu jox sëriñ bi mu indiwaat ay kàddu jëm ci loolu aouzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim euh, mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nuy gis ñoo ngi nuyu ñëpp euh, sant nuyu waale mbokki soxna jaare yi daayira yi maam jaare yépp ak képp ku nga xam ne liggéey maam jaare bi ñor la yaa ngi ci donc leen nuyu di leen ziare yaakaar naa dangeen ngeen xam lu tax ñu euh, taxaw fii tey di àggaliwaat beneen message euh, mooy ne liggéeyu maam jaare bi nga xam ne moo aju ci parrainage yi maam jaare bi ci boppam moo rëy rëy goo xam ne nii Euh, pour mu gën a continuer euh, ñuy jéem a ko àggale fa nga xam ne foofu la ko Cheikh Moustapha euh, yéene woon a àggale muy daal muy daanaka daayira maam jaara bu ne mën a am benn maam jaare bu lay représenté ca daara ja loolu mat di fàttali la loolu moo doon bëgg-bëgg woom ndax maam jaara boobee représenté daayira bi ëllëg si biir mu delluwaat fa daayira bi jóge woon gën leen di xamal seen euh, seen alquran gën leen di xamal seen diine euh, gën leen di xamal itam leen won yarub maam jaara nu muy mel ba nga xam ne ñoom it dañ ci mën a inspiré yooyu ba gën a mën a taxaw ci seen bopp ak saxaw seen njaboot loolu mooy objectif bi loolu nag euh, ñëpp xam nañ ne daara ja fi ñu tëll mat na juróomi téeméer juróomi téeméer yooyu nag li tax mu gën koo mat sax mooy biñ tàmbalee ci parrainage yi ba ba ba ba ba ak ba itam ah, nit ñi gën cee jàpp ba dortoir yi yokku moo tax ñu war ko mat waaye nag objectif yi mooy àggale ko foofu Cheikh Moustapha bëggoon mu àgg fa ñëpp xam nañ ne juróomi téeméer yooyu mi ngi dëkk ci dana dana dana lum tuuti tuuti diggante léegi si diggante ay treize quatorze ba jëm 15 xam na statistiques exactes yi xaj ne amuñu ko waaye daanaka du yées 15 millions par mois loolu nag rëy na lool loolu kon bu xalaatee ne kon bu yokkuwaatoon juróomi téeméer mu muy mel kon euh, dépense yi dina bari lool ak la ci ajo waaye comme ni ma koy waxee fépp rek euh, Pastef bu taalibe ndax Cheikh Moustapha naka jekk bi muy xalaat lii itam. xamoon na ne taalibe yi taalibe yi la ci jubloon ñu financé ko te xam na ne taalibe yi mën na ko seen Pastef mën na ko moo tax mu jiite woon daayira Maam Jaara yi loolu nag biñ ko seetee ndax bëgg liggéey bi gën a gaaw ci lañ xalaatee euh, parrainage wax naa leen ko fi ba tàyyi mooy parrainé kenn benn Maam Jaara wala ñaar wala ñett ku ko man kenn ku ko man wala daayira bu ko man wala daayira bu man ñaar wala daayira bu man ñett loolu nag ñi ngi koy def def yin woo xam ne bu yéemu la yaakaar naa ne ñu bari eh, xam nañ ne parrainage bi am solo gi am solo sëñ bi dina ko waxal boppam eh, maanaam wax na ko ci lii di ñëw yi am solo gum am solo tax na eh, léegi dundu maam jaara yépp parrainage bee koy def te dund yi moom lañ leen wax rek diggante ay ay ay ay treize ba quinze millions ci par mois loolu nag kon moo lay xam te ba mu commencé ak léegi daanaka ci at mu wóor lay doog a tolloo xam naa ñaari at biñ ko commencé sax mën naa ne nit ñi di ko gën a jubóog léegi daanaka ñaari at yu mat sëkk ko ma koy da koy doog a mat daanaka yu mat sëkk boobaag léegi tàmbali nag sëñ bi joxe na ordre daaw wax ne euh, kon li fi nekk te mu jógee ci parrainage yi nay dundal daara ji ndax dundal taxoon nit ñi di ko dajale kon nag ginnaaw mën na lu mat a mën a dundal eh, daara ji na commencé dundal daara ji ci loolu nag ba tey ci soññ boobu rek laa laa xalaate woon ne eh, di sant yàlla bu baax a baax ci ci xalaat boobu nu yàlla dimbale ndax ginnaaw boobu noo ci nekk di ko woote eh, taalib yi di ci def man xalaat nag ah, looy woote itam kat war nga caa nekkal sa bopp nekk ca looloo taxoon ma xalaat ne kon nag nan wut structure bu nga xam ne maag euh, euh, bokk yëpp euh, waa kër Cheikh Amadou Bachir yi bokki taalibe ak bokki wóolëre yi nga xam ne ñoom ñëpp xam nañ de ñu bëgg a liggéeyal ci maam jaara nu ànd def benn groupe bu nga xam ne moom it dana ànd ak daayira yi ànd ak fédération yi gën a taxaw ci liggéey bi loolu nag eh, lañ doon jébbale eh, daaw lañ ko tàmbali fam na am année bi day doog a jeex rek lu nga xam ne eh, yëgle gañ ko waroon a yëgle itam xañ na àggagutoon ci demee solo waaye yàlla def na moom itam dajale nañ ci ba mën a pare ne 45 maam jaara jëm 46 maam jaara noonu lañ doon jébbal sëñ bi tey muy muy million millions euh, daanaka 200 euh, wala 300 mm, wala 300 mille. yu manqué tuuti en tout cas daal 46 maam jaara lu man di xew moom pare nañ ko ci ci loolu loolu moo lay xamal ne kon bu ci buñ ci buñ ci bu ci bu ci ñu bari duggee ñi nga xam ne moom mooy bokk yeeg taalibe yi nga xam ne ay wëllëre lañ niñ ko nara woon ak waa kër sëñ basiru eh, njaboot gi niñ ci nekkee bu ci ñëpp duggee kon daanaka eh, dama doon kafe benn bis ci ci ci ci ci fédération Paris naan leen dana dem ba nga xam ne xañ na fédération yi noo ciy man groupe bee ciy man waaye loolu bu ma ko waxee soññ la ci kenn ku ne waaye nag gën leen a xamal ne li am solo ci manante mooy ku jëm ci yàlla te lii ci yàlla la jëm moo tax nag kenn ku ne war na cee góorgóorlu gën cee mën a gën cee mën a raw sa moroom tey def li nga xam ne moom la ko mun Mountakha yi waxee toujours kenn ku ne yéene ko sa moroom loolu nag moo tax euh, gannaaw buñ ko jébbulee ba Cheikh Mountakha wax waxam ju réy jii mu wax ma gën a soññaat rek ñépp rawat na ñi nga xam ne euh, ñoom lañ àndal ci liggéey bii ta bii ñuy tàmbali waaye ñépp la taalibe yépp ñu xam ne kon ni ko Cheikh taxa waxee liggéey bii liggéey suñu borom la te liggéeyu taalibe bu ne yàllaa tax mu di ko def te euh, amutub limite lu nga xam ne itam taalibe war na ko def ngir yàlla te eh, ni ko Cheikh Mountakha waxee di jaamu yàlla di ko def addiyee sëñ Touba kon nag kenn ku ne war naa na nga xam ne noonu la defee léppam jox ko yàlla jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, di jaamu yàlla di liggéeykatu yonent bi sallallahu nu itam noonu war wëlbatikoo suñu lépp roy ci moom continuer ci noonee ci yoon fas yéenee di di di liggéey te yàlla rek tax ñu sellal ko kon gën a soññee di ci gën a woo bokk yëpp xam ne liggéey bi ni ma ko daan waxee liggéeyub sëñ Tuubaa bu bokk ci liggéey yi ko gën a ñor la ndax liggéeyal ko ci lim gën a bëgg la mooy alxuraan liggéeyal ko ci li nga xam ne moom la man muy métier moom la mooy yar waaw kon nag euh, kenn ku ci nekk ku ne na xam ne liggéeyal sëñ Tuubaa la ci liggéeyal na ci taxaw na ci na xam ne euh, lu ñor la lu farata la te itam lu rëy la itam réyaay boobu nga xam ne Cheikh Moustapha ci ci li ko yàlla may bam xalaat xalaat bu rëy boobu fas ko yéene lëggéeyale maam jaara ci poroxaan woo ci ñëpp kon nag na ci ñëpp gën di wuyu noonu fas yéene engagé ba nga xam ne yéenam jooju mu bëggoon eh, ñetti ñetti yi maam jaara yu nga xam ne mën nañ leen a parrainer te loolu danaa ko répété buñ ko waxee day nuru lu lu lu lu jafe wala lu sori waaye ñetti junniy daayira lu ko ëpp am na léegi daayira bu ne bu jëloon benn maam jaar nu am ñetti junniy maam jaara te loolu xajagut ci li nga xam ne eh, am ay maam jaar yi ñuy kii waaye dana dolliwaat lépp te loolu pour mu dolli ko lépp war a dolli ko jàngalekat yi day dolli ko eh, dëkkukaay yi day dolli nga xam ne blocage bu rëy rëy la ba tey dëkkukaay yi day dolli ko lépp day dolli ko kon nag nan def suñ objectif noonu ko Cheikh Moustapha bëggee woon fas yéene lum tuut tuut daayira bu ne na am benn maam jaara nit ñi itam kenn ku ko man ku ne pare na benn maam jaara wala ñaari maam jaara loo ko mane waaye xam ne loolu dana gaaw a àggal yàlla ku ko def ku ne yàlla dana la dimbale ci bëgg ko Cheikh Moustapha gu googu yéeneem ju joojule te lépp jëm ci sunu boroom yàlla dana mën na laa dimbale ku ci bokk yàlla ak bokkale la ci yéneem ju jooju ak pay gu réy gi nga xam ne suñu borom dana ko ci fay kon nag na ci kenn ku ne taxaw na kenn ku ne xam ne léggéey bi dama koy répété duñ ci dañ di ko répété liggéeyub sëñ Touba la liggéeyub yàlla sëñ Touba la duñ koy defal yàlla tax ñu di ko def seex Cheikh taxaw wax na ko léegi kon nag lu ci waaye def na nga xam ne sëñ Touba nga ko defal bu wóore wóor defaloo ko kenn kon nag dañuy répété waat ñëpp xam ne du liggéeyu kër sëñ Bachirou képp sëñ Bachirou yàlla ak sëñ Cheikh ci ndigalul sëñ Touba la la la nekkee jëwriñi maam jaara kooku ko fi nekkal ku ne yaay jëwriñi maam jaara waaye jëwriñ la li jëwriñ di si ñu fi nekk loolu lañ nekkee jàpp naa ne jëwriñi sëñ Touba jëwriñ ci ci notion murit mooy kuy jëkk ca tool ba waxtu wu ne di ca mujj te ku ne xam na ne waa kër Cheikh Amadou Bachir noonu lañ demee ci liggéeyu maam jaara bi di ko liggéeyal ngir ngir sëñ Touba kon nag ku ci ku ne na ñëpp xam ne liggéeyu sëñ Touba la du liggéeyu waa kër Cheikh du lay luwaay lu ñuy liggéeyal sëñ Moustapha du lenn lu ñuy liggéeyal sëñ Mountakha mii sëñ Touba la ñuy liggéeyal ci li nga xam ne moom lañuy def kon nag na ci kenn sëñ Mountakha di suñu jëwriñ mat ko lool cant yàlla sax mooy. dem ba nga xam ne la ngay def ku mel ne Cheikh Mountakha mooy jëriñ ji kon nag ànd ak moom ci liggéey ba yaakaar naa ne kenn ku ne war naa bëgg loolu war naa sawar ci loolu kon nag noo ngi gën a woowaat bokki bokk yëpp bokki taalibe yëpp bokki jullit yëpp comme ni ma koy waxee liggéey bi eh, du liggéeyu ni ma wax léegi ne du liggéeyub kese nañ Basiru waaye gën naa yaatu du liggéeyub murid yi rek du liggéeyub góor kese du liggéeyub jigéen kese du liggéeyub murid yi kese liggéeyub jullit yépp la ndax lañ fay def jullit yépp ko bokk te itam ku gis résultat bi daal di xam ne lii njariñal jullit yépp la kon nag ñoo ngi ñaan di woo képp ku nga xam ne mën na ko di ko def di ci def ngir yàlla te yàlla rek a tax nga di ko def sellal ko ngir yàlla di ko def ngir yàlla loolu rek mooy li am solo kon nag lii alhamdulilah noo ngi gën a sant sunu boroom bi nga xam ne yàlla dimbaleen nu ba xelum àgg foofu ci ci ci bokk ci liggéey bi bañ a yem rek ci ñi koy woote di ci waaye bokk ci liggéey bi yàlla dimbaleen lu ba nga xam ne kon an yàlla defal nañu ko kon nag noo ngi ci gën a bokk yëpp ñoom ñëpp wooy ndax na ñëpp wuyu xam ne liggéey kon nag ginnaaw sëñ Bachirou mooy jëwriñ ji kon nag waa kër sëñ Bachirou kenn waru leen ci man kooku loolu laay wax fu ne kenn waru leen ci man ci liggéey bi kon nag nag ci kenn ku ne taxaw kon nag jël naa lii moom maa ngi ciy gën a woo moom itam mboolem jël naa bokk yi ak wóllëre ak taalibe ñi nga xam ne seq nañ ko ñëpp waaye nag ni ko Cheikh Mountakha waxee gën naa yaatu kon nag na kenn ku ne xam loolu mu taxaa jàpp na ne kon daanaka man nga ne liggéeyu maam jaare bu jëm ci parrainage ñaari groupe la groupe bi nekk extérieur ak bu nekk fii ci Sénégal te kon lii nga xam ne moom lañ tàmbali tey la jàpp ne mooy incarné groupe bi nekk Sénégal loolu nag buñ ko déggee noonu yaakaar naa ne lii nekk Sénégal képp mën nañoo yor daara ja ba def fa euh, lu ne waxantuma laag ñi nekk ci biti te bokk ci liggéey bi tey gën a soñu ci liggéey bi ci wata nga xam ne itam kenn mënul leen ci liggéey bi boobaak léegi kon nag noonu rek la noo ngi ciy gën a soññ di gën a sant yàlla di gën a soññ ci waxi Cheikh Mountakha ji eh, di ci gën a soññ bokki taalibe yëpp di sant nag eh, cant gu amul ab ñi nga xam ne lii yal na ñëw yi ci parrainage bi yëpp ñoo ngi leen di sant waaye lii itam ñi nga xam ne fi saa si daal nañu ànd nag ñun ci liggéey boobu itam ñoo ngi leen di gën a beral seenu cant kon nag jërë ngeen jëf na yàlla nangul mbooleem ab jullit nangul képp ku nga xam ne yaa ngi jëm ci liggéeyub sëñ Tuubaa bi bi nga xam ne mooy Poroxaan dañ dafa jàngale alquran di fa yar yarub alquran li may wax naan yarub maam jaara bi ci koy maam jaara ñu fas ko yéenee tas ci àdduna si kon ku ne xam ne ne ëllëg loolu incha allah njëriñal réew mi yépp la loolu tax may wax ne yëf yi du ab euh, murit kese du góor kese daayira maam jaara wala jigéen daayira sëñ góor daayira sëñ Tuubaa wala jigéen daayira maam jaara liggéeyub murit yépp la waaye liggéeyub jullit yépp la kon nag ngi gën ñaan ñëpp ñu gën a engagé wu ci liggéey bi ndax liggéey buy wéy la luy wéy la ba faw kenn xalaatut liggéey bu toll nii yàlla tax nga def ko mu Moustapha ni ma def muy dem bay dog loolu kenn xalaatu ko ba mu koy def pour mu continuer ba faw lay doon kon nag na ñëpp dogu ci ne liggéey boobu buy waxtu wu ne ñu fi ñëw rek continuer liggéey boobu faw Cheikh Mountakha ñun ñëpp dëgg nañ bi muy wax liggéeyu euh, sëñ Touba bi mu engagé ba ne ne iala kalimatillah kon nag nag lépp gën a jëm kanam lépp gën a te yàlla rek tax ñuy def ndax bu ñu deful loolu yàlla rek pertinent te fasunu nitu sëñ Tuubaa wërta def lenn lu nga xam ne yàlla taxut mu sellal ko dëggal ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, mbokk yi kan xam naa ñu dellu siwaat rek tegaat ci ay kàddu yu tuuti ci ndigal mooy dañuy dolli leeral rek ci eh, sëñ bi fi mu daaneele xam ne tey jii euh, parrainage yi ñu doon jébbale mooy parrainage yi nga xam ne sëñ bi ci boppam moo wut groupe bu boppam groupe boobu te ñu ngi ko tuddee woon ndigal jiitu ca ginnaaw moom moo koy digle woon loolu moom moo taxoon mu ne na wut groupe bu boppam boo xamante ne ak njabootam la ci boole njabootu sëñ bi bokki taalibe yi ak wëllëre yi nga xamante ne ni eh, jege nañu rawatina ñi nekk fii ci biir Sénégal mu ànd kook ñoom ñooy nag ñoo dajale woon tey jii ba am euh, huit millions trois cent quatre-vingt mille wala trois cent trente mille moom lañ jébbaloo ji woon sëñ bi ñu xam ne sëñ bi bi mu ko yëkkatee itam euh, bi mu ci waxtaanee ak sëñ àll sëñ fallu sëñ Fallou dafa daal di joxe moom fi saase sëñ Ablaatum euh, sëñ Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Amadou Bachir itam moom bokk na ci yi nga xamante ni ñoom jëkk nañ cee jot joxe na niñ ko bëgg a def rek mooy dañ leen di wutal ab liste boo xamante ne dangeen ko gis mboole ñi nga xamante ne ni jot joxe jot jot nañ cee joxe ñëpp seeni tudd dañ ca nekk loolu nag sëñ bi bu ngeen gisee li tax euh, mu ñëwoon ci euh, kër sëñ bi waaye woote itam ngir mbooloo fekke ko mu woo presse bi ngir ñu fekke ko loolu lim ci jublu mooy mboole ñi nga xamante ne nii ñoom la ko seqal te mu daan leen digal ñuy def ñooñe ñu xam ne sëñ bi lim leen digal lim leen doon digal moom moo ci jiitu ma nga ca ba noppi. waaye itam ñu taatan ci ay kàddu yoo xam ne jóge na ci Cheikh Mamadou Muntaxa yoo xam ne da ku ko déglu dana nekk ab soññ bu baax a baax ci yow ndax euh, sëñ bi daanaka moom ni mu ko xalaate rek mooy euh, ñu def ko mu nekk ñaari équipe benn parrainage bi mooy bi nga xam ne dafa féete bitim réew. waaye beneen parrainage bi itam mooy mi xam ne moo féete ci biir réew mi dafa mel ne boobu nag la bëgg sëñ Isaaxa jiite ko ci xalaatam bi ma ñu woo ci mboolem mbokki senegal gépp ñi fi nekk képp ku ko yëg te nga xam ne man nga ko boo mënee jël kenn ci sa doole bopp nga def ko soo ko mënee lu ko ëpp itam nga def ko soo demee ba am gàllankoor ak mën a jël kenn itam nga xool yow la nga mën a am ci at bi am nu mën a toll rek nga joxe ko liñ ci fàttali itam ñu xam ne du lu ñuy joxe benn yoon rek daal di bàyyi waaye dañoo bëgg at mu jot ñu dajale ko ginnaaw euh, daara ji noonu la tëddee dañuy am waxtu wu ñuy tàmbale ak waxtu wu ñuy tëj at mu nekk kon dañuy bëgg nag yow mi nga xamante ne yaa ciy def itam nga jàppe ko noonu at mu jot nga joxe sa participation boobu nga xamante jox nga ki joxe woon ren dix mille déwén bu ko yàlla dogalee ba xéewal gi gën a bari ba man vingt mille wala trente minutes na ko def ki joxe woon deux mille deux cent mille yàlla dogal déwén mu man deux millions itam na ko def waaye ñoo xam ne at mu jot lay doon kon at mu jot daal kenn ku ci bokk ku nekk na nga yëg ne war nga cee joxe nga soññiku te sëriñ bi incha allah dana ko wutal ay yoon yu gën a leer yoo xamante ne ni su demee ba taxawal yoon yooyu danañ ko gën a leeral ba koo xamante ne am nga lu ci lu ci jëm nga xam yow fa nga xamante ne boo ko fa yóbboo dana mën a bokk si ci liggéey bi kon looy kàddu rek mooy yi ñu ci doon leeral ci kanam suñ bokki taalibe yépp nga xamante ne boo gisee nii mu tëddee itam nga xam ne sëñ bi li mu ci bëgg rek mooy mu gën a siiw gën a yaatu euh, information bi gën a jàll ci nit ñi soññe bi itam gën a jàll ba kenn ku ci nekk itam yëg ne liggéey bi sa liggéey bopp waaye kenn ku ci nekk itam nga jàppee sa bopp jawrin nga xamante ne dangaa war jàpp ne yow yaa war a soññ ñëpp kon yow kenn wër laa soññ buñ ko jàppee noonu rek yaakaar naa ne liñ ci bëgg lépp danañ ko am asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaasal minna li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaasal minna